voilà juste on va permettre à Mamadou mm-hmm. Mouhamed euh, ci gàttal rek mu tënkal ñu euh, li yéen a yi xëy na far tey Mahmoud. oui Pape. gis nga gis nga sa xarit bala mooy triple S. yow démb dégg nga nee nga bombardier mooy sa xarit yaa ko fi wax. <laughs> non mbër yëpp su may xarit yow yaa wax loolu. <laughs> Pape. oui <laughs> ma. waaw. mbër yëpp su xarit lañu. kon baax na waaw. ma ba max la yaa ko wax ngi nii ci ginnaaw ci observateur gis na ko waaw moom moom lay liir nii est-ce que moom mën na liir sax balaa ngi liir de ah balaa ngi liir lop de waaw na liir ci kaw ñu dégg wala may sori comment na liir ci kaw li gis na ko liir ci kaw ñu dégg voilà donc moom mu ngi liir actuellement soo buggee ma ba la comme je t'entends pas trop bien ci plateau bi ay ca kon yaa ci des ñu dem jërë ngeen jëf doore yéen a ñu xëy dal observateur mi xëy dikk li amoon démb ci université Cheikh Anta Diop euh, li amoon ci tribunal bu Ndakaaru muy étudiant université Cheikh Anta Diop ya ñu fa doon atte euh, journal bi observateur xëy xamal ne kon étudiant yooyu nga xamante ne ji toll nañu ci ñaar fukki étudiant ak ñaar ñaare dañu leen a bàyyi ñu dem ndax euh, yoon amul dara lu leen di toppee waaye ñaar fukk ya tey ji ci àllarba ji la ñuy xam fan la ñu mujjee ak yoon étudiant bii di Apollinaire Diatta mi nga xamante ne ji nee nañu moo sooke yëf yi yéen a kaay bi di observateur ne ko ci cour ñu koy toppee université ak la fa xew bu ci dellu siwaat moo di populaire euh, populaire xëy dikk ak ñun ci université Cheikh Anta ak étudiants yi nga xam ne moo fay ñaxtu journal bi euh, dikkee ko nii ci titre bi lam ñu xamal moo di tey ji verdict bi nga xam ne ñoo koy xaar jëm ci étudiants yi ak seen euh, atte fan lay mujj en tout cas li leer ba leer mooy tension moom mën na fa am leneen lu yéene kaay bi xëy xamal moo diit euh, Mary Teuw bi nga xamante ne ji li journal bi gis mooy dafay matt di ëf waa SAES e syndical gu ëmb ñu yëngu ci njàngale mu kawe mi li nga xamante ne ji wax nañ ko te bëgg ko moo di daal ñu jële takk der yi fi nga xamante ne ji moo di ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru université boobee ak la fa xew beneen journal bu ci xëy dellusiwaat moo di Walfadjri moom université Sénégal yi la boole crise dëgg la ca la ca seen bourse ci Ndakaaru ak ca ne ji ñoom ñooy euh, euh, étudiants yi ñoo ngi ci grève illimitée journal bi nañu diwaanu Thiès rek ñoo ca tànn jamono ji ndax ba fi nekk ni eh, kenn déggagu leen libération xëy dikk ak ñun ci lu aju ci étudiants ñu doon tuumal gémier duggoon ci université ba ci ne dañ doon violer xale jigéen yi di sàcc eh, alalu étudiants yi yéen a bi nañu ko ko waxoon ba mu demee ci division investigation criminelle dafa weddi loolee ba mu set wecc réew mi quotidien xëy ñu xamal leneen loo xam ne xamuñu ko woon ci mbirum étudiants yooyee journal bi nañu lu moo leen dalal ci rëbës mu di 22 moom moo ko xëy wax waaye journal bi yamu ca ndax ne nañu moom Karim Wade dana jàkkaarloo ak juge bi fanweeri fan ak benn ci weeru juillet observateur moom it xëy dëggal loolee nga xamante ne ji moo di wax mu di layeb Karim Wade ba sax tegal ci ne eh, yëf yi ca tribunal Lat Dior lay amee ca it eh, du loo xamante ni dañ koy nëbbu nit ñi dinañ ko kon mën a ñëw seetaan si beneen yéenekaay bu wax ci loolee moo di direct info jëm ci li nga xamante ne ji moom moo di mbirum Karim Wade eh, moomile ñu dem ci beneen journal mu di yéenekaay bi nga xamante ne ji moom moo di laas dafa dikk ak ñun ci lu aju aju ci kàddu yu bawoo ci sëriñ Abdou Fatah Mbacké ma ci Macky Sall nee na na xoolaat ñi ko wër ndax am na ci ñoo xamante ne ji baaxuñu ci siiwal yéene kaay moom sëriñ bi di sëriñ Abdou Fatah Mbacké ne it ñi jege Macky Sall am na ci ñoo xamante ne ji ñoo gën a bon jàngoroy peste ma jeexale ak direct info mi dikk ñun ci xibaar bu doy waar bu yéeme boo xamante ne ji xam naa ne dina bari kon ñu muy naqari direct info lan la wax nee na ki nga xamante ne ji moom moo di Wally Seck moom Wally Seck jamono ji kenn xamul fan la féete kenn xamul fan la ko jant bi di tiim yéene direct info kon moo ñu wax loolee journal bi dem ci ak ñun ba jeex lam ñu xamal moo di Wally Seck dafa am ñoo xamante ne ji dañoo waroon a tëgg ak moom soirée eh, gars yi euh, gisuñu ko euh, waxaale ba pare mu jugee Zénith ne dafa sonn après ci la ñu ko jël moom waa Wally sekk daal di koy kidnappé yóbbu ko fan la féete direct info nañu xamuñu ko jamono ji Pape Cheikh. jërëjëf Mahmoud. jaajëf ñu ngi lay gërëmaa. Ah. ok alors je rappelle que revue de presse bi mën ngeen ko fekkaat euh, ci site bi www.gfm.sn et puis euh, voilà toute la journée ci euh, rajo bi tele bi itam tout à l'heure à 13h ci journal bi on te retrouve pour la revue de presse si vous nous rejoignez ba léegi ñu ngi en direct ci euh, parti Yeewu Leen bi ñu àndandoo ak le roi des arènes Balla Gaye 2 bi mu jógee euh, Amérique ba wàcc aéroport direct ñu jël ko en direct ah mu yegg si ci plateau bi pour ñu waxtaan ak moom je vous rappelle aussi que fii euh, quelques minutes ñu jël kenn parmi yéen ñi nga xamante ni yéen woote téléphone bi appelé Balla Gaye 2 ëndaale Serigne 50 000 la ñuy joxe léegi nii ah. pour ku ñu jël léegi téléphone bi ah. alors